doo liggéey sama kanam man mi maa ko fekkee bu mu defee la rek waa ji xiib mbay ci ma sama peel mbay mën na ko xam ne dara mbay waa waa ji siit pikk bi rek dóor ko mbay ci digg ba bi kaw pikk bi càng bi pikk bi cangee nag gars yi ne léegi fan la fan la ñuy jëlee bagage yooyu fan lañ koy dee fan la ñuy dee euh, mbay dina dee ñu rawale ko yóbbu ko hôpital bu ñu hôpital médecin bi daan nañu si on l'enlève le pic le sang va circuler il va mourir amatuñu solution ma ne nañ leen ko yóbbu ci corps soudeur ci ci corps soudeur métallique ma daane corps dimbali ma laa war suuli nga jël meul bi daggal ma pic bi parce que euh, médecin bi nee na poids bi mien moo diis dans 30 minutes day dee ci la tol ko jël meul bi dagg pic bi sama kanam Dan, bo pic bi dañ léegi nag diggante bi nii weñ bi ci biir moo xaaj cerveau bi mbay mën nay wax ak yow di déglu kii ñu tuddee ko mbay pic dubul cerveau loolu boo bëggee mën naa la ko wan RTS ku bëgg ma wan la ko boo ñëwee ba fii wan la ko incha mi ngi fii ci kër ma saa fekkee laa lay wax bii mën naa ko fekkee waa ji dafa sàcc daw gaay di ko dàq man sax ci ñi ko doon dàq laa bokkoon dañoo daw daw ba mu yàgg rek mu daal di ne menteng ne mes man xam naa fi mu nekk mais ndeysaan yërmande gi nga ma am mu bugg maa wax ne mi ngi fii ñu wër wër ba sonn xamuñ fi mu nekk gaay na sàcc bi ne paa bi ne déedéet sàcc mënut a raw de parce que ñun ñoo fi nekk ak ñax yi sàcc bu nekk ci biir rek mi ngi ci biir ñax yi léegi daal liy solution mooy nañ jéem a taal ñax mi rek sàcc daan déggal boobu xalaat bu ñaaw boobu rek kookoo ñaaw xalaat ci ko jàpp dóor ko bay bëgg a ndeysaan